Euh, dañ leen wootee pour ñu waxtaan ci lu ama am solo mooy yàlla ci mbaaxam ak Sénégalais yu bëri li ñuy wax naan suñu ñaanu mag ñi waaye nag suñu ñaanu mag ñi bu feeñee ci meññ ñu toog di seetaan ba ñun niñ ci waroon jëfandikoo jëfandikoo ñu ñun mérité wuñu mag su dee mag ñi ñaan yàlla nangu ñu ne Sénégal pétrole feeñ na fi or feeñ na fi zircon feeñ na fi fer feeñ na fi ñu ne ah jën gi bëri ci géej gi lépp ngi fi allah ñu toog di sàggan di seetaan mel nu Macky Sall ak ay ñoñam ñu jël loolu yépp jébaane ko bu boobaa ñun war nañu xoolaat ndax mérité nañu ñaanu mag ñooñu kon ñooñu seen jaan wàcc na waaye nag suñu suñu rôle moo ci tey enjeu bi ñu andi tey ponk bi ñu bëgg a waxtaan ak waa Sénégal mooy yàlla ci mbaaxam ak yërmandeem bi mu am ci ñun ak ñeewantam daf ñoo baaxee fële ci Sénégal oriental booru Tambacounda fa ñuy wax Falémé muy pratiquement suñu frontière ak réew Mali yàlla wërsëg nañu fi lu bëree ci alal lu jëm ci li wax fer mooy weñ xam nga weñ dañuy wax pétrole lu bëri di wax koor lu bëri waaye dañuy fàtte ni weñ bokk na ci lu téye économie mondiale weñ weñ boo xoolee ci salle bi rek pratiquement amul lu fi nekk am amul weñ xoolal trépied bi lii weñ la amul lu fi nekk te amul weñ àdduna bi yëpp soxla ko tey Chine rek dañuy consommé ci weñ ci weñ Amérique Europe kenn xamul nu mu toll nag may ñu ci te mayeen tuubi ndax yàlla buy day maye ba mu mat sëkk yàlla mayeen teew dama bëgg Sénégalais yi déglu ma yàlla daf daf ñoo daf dafa dafa naka la ñu koy waxee dafa kii rek sànni mooy dafa def nii ci kopp forom rek sànni naka la faire boobu toll sama côté ci wolof nag dafa xaw a jot waaye Ablaye wala wala kii Diallo Diop su ma waxee ci français nga wax ma naka la ci wolof yàlla daf ñu may ca lañ fa gis te muy lu xam ne ñi seen xam-xam màcc ci loolu géologue yi ci liggéey dañ koo liggéey ba càmbar ko. ne nangam la toll dafa mat ci li ñuy wax cent cinquante millions mooy téeméer. juróom-ñaari téeméer ak juróom fukk ci ay millions ci ay tonnes ci fer loolu loolu loolu soo ko doon xayma bëri na trop ñu ne loolu li mu toll noonu réew bu amee loolu ñaari possibilité la imam mu ne lii dama koy gas rek génne ko jaaye ko noonu muy minerai bu dee Sénégal loolu la fas def lañ ca mën a am ci alal buñ ko exploité ba mu jeex mooy trente trois mille milliards de francs CFA trente trois mille milliards ah ñett ci junni ci ay milliards loo xam ne lu ñu Sénégal war a mun a am suñ ko exploité ci loo xam ne transport bi dañ ko génne rek jaay ko mu def dégg dëpp na déedéet su loolu dëpp na trois cent fois ñu Sénégal ak ci léegi ñu ne ñaareelu possibilité bi mooy ñu ne nag léegi comme yàlla may nañu gaz xam nga ni koy transformé gaz da ak pétrole ñu ne ah yàlla de ci mbaaxam dafa wax léegi ni yàlla du mayal yàlla su lay may day may ba mu mat réew yu dem yëpp dañoo jékki-jékki yàlla may de waaye bi leen yàlla mayee dañoo am seen fulla ak fayda naar ya bu leen yàlla mayee muy Arabie muy Qatar muy Dubaï dañoo am seen fulla téye seen alal tey ñoom moom 100 pour cent ak seen pétrole moo tax gis nañ dañ ca am barki démb Norvège du ko yàlla mais pétrole dangal nag dafa am fulla moo tax ñu téye cent pour cent ci alal la moo tax mooy réew bu ëpp indice de développement bi mooy foofu la ñi gën a seen biir du gën a ñoŋee ci àdduna foofu la nekk. li ñuy xaymaa nekk doomu aadama bu baax fa la gën a baax ci yooyu ñuy wax rek les pays scandinaves nun nag balaa may dañu naan malédiction malédiction amul de yàlla du la may ba pare di def malédiction parce que mandition mooy lu jóge ci yàlla ñàkk fulla ak ñàkk njiit yu baax mooy suñu problème amuñu benn malédiction kon soo amee pétrole am gaz yàlla mayandoo la ko ak fer ñaareelu possibilité mooy nga ne ko jël ak jaayee ko noonu dama koy wëlbati parce que bu pour mu jógee ci mine bi ba nekk fer weñ bi nga gis wala inox bi nga gis dafa am lu ñu ciy liggéeyee wëlbati koo defaraat nga defar fii ay usine sidérurgique ma defar ko fii Sénégal bu ko defee li ma doon jaayee quatre-vingt-huit dollars bu doon dama ko jël rek jaay mën naa ko jaay tey à sept cent dollars ci marché bi donc boo xaymaa lañ ca mën a am ci fànn boobu mooy cent cinquante sept mille cinq cent milliards de francs junni. ak juróom juróom ñaar. ci ay junni ci ay loolu bari na loolu. bari na trop. waaye dara ci yàlla. loolu la yàlla may. waaw gannaaw bi yàlla mayee lan ci Macky Sall def. lan la ci Macky Sall def mu toll nii loolu lañ leen bëgg a faram-fàcceel bi ñu yàlla mayee ni ba noppi ci wàll ci version wolof bi mun naa tëb historique yëpp fi ñu jaar jëkkoon ko jox ay sud africain nangu ko ci ñoom ñu dem porté plainte ñu ne nañ leen fay 400 milliards Sénégal di ko fay par exemple a joxaat ko indien yi ñooñu def ñu ñu war a def ñun Sénégal ñu yóbbu leen tribunal Paris Paris ne ñun ñoo am dëgg ñu am ñoo fay deux cent cinquante milliards Macky Sall ñëw ne leen jox nañu soixante quinze quinze milliards rek doy na sëkk waaw soixante milliards rek ñun bëgguñu dara waaw Sénégal rek dañoo war a ni bëgguñu dara ba tey ñu ñëwaat Macky Sall da koy jox benn kuréelu benn société wu Turquie bu tudd Tosyabi yàlla nag may nañu ñu dem parce que dañuy def dañ koy nëbb fi mu toll nii bi ñu yégee ni sax man bi ma njëkkee am naa convention na nangam nangam dégg naa coow ga jeex na ñu naan fu koy jox fu muy jëlee bi ñu jotee document bi damaa tëju xool ko parce man sama carrière wu inspecteur des impôts kii inspecteur des impôts loolu moom it ñoo bokk promotion léegi génn na nekk enseignant nekk expert fiscal ni mag sama carrière suñu carrière yëpp ci la ñu liggéey bi ma ko jëlee dama tëdd xool lii lu doon ak lan wax waaye bi ma ko liiree ba génne ko guddi googu tëdd naa dama am insomnie dama ne alaaji Macky Sall sañul di xanaa insomnie laa am lan la Macky Sall def Macky Sall le 9 octobre 2018 ñeenti weer balaa ñuy balaa ñuy def def élection présidentielle xam nga président bu normal bu ñu desee bu ñu des ay weer ci élection am na yenn contrat yoo xam ne waroo ko signé di engagé parce que mën na am doo continuer te li ñu daloon ci Petro-Tim la. ndax président Abdoulaye Wade dafa signé dañu signé contrat bi jotul a yeggali décret bi nguuram daanu Macky ñëw te ñëpp nañu war a xam ne nag décret bi rek mooy jox àq yi mooy joxe droit mu ñëw ñu ne ko lii baaxul IGE ko lii baaxul bu ko joxe Franck Timis comme saay-saay la te muus na mu dem fax Aliou Sall ne ko yow laa def sama gérant société Aliou Sall dem gis Macky ne ko signal ma kon lay yoon mooy bu desee lu dul ay weer nga war a jeexal sa mandat am na xeetu contrat yoo xam ne waroo ko signé ci réew waaye comme suñuy dëgmal élection nag ñoom dañuy soxla koppar ndax seen politique yëpp koppar lu may def ba jënd nit ñi moo tax ñu dem si yu mel ni le 9 octobre ñoom ñoo dem fekki Turquie Euh, Ankara Istanbul ba ñu signer. signé diggante ku ñuy wax Fuat Toseli moom moo représenté entreprise sociale holding ak ki wax madame Sophie Gladima nga xam ne moom mooy suñu ministre bi ñu dénk lépp lu jëm ci mini cëslaayu contrat bi ñu def contrat bi ñaar la benn

500 milliards de francs CFA première phase 60 milliards deuxième phase 450 milliards ñaari Boko 510 milliards de francs CFA Mom la société sociale yi boobu war Sénégal investissement à tuuti na trop trop trop trop qu'il li a jox social yi ci sax trop 2006. bi président Ablaye Wade di jox ArcelorMittal ak li mu demandé woon ArcelorMittal ko mooy mille cent milliards la ArcelorMittal waroon investir fii mooy ñaar deux fois plus deux fois plus waaye yemul ci loolu ArcelorMittal dafa waroon tabax ab raay buy jógee booru Tambacounda ba egsi Dakar sept cent cinquante kilomètres de rail waaye ci contra bi Macky Sall signé Sénégal mooy tabaxal Turquie raay bi yàlla ñuy ñëw woon lii boo koy gis sa xol day jóg bokk na ci Ablaye demandé woon Turquie yooyu ba tey wala indien yooyu mooy euh, ñoom dañu waroon tabax benn port fii boru Dakar boru Sène port bi yi

donc investissement bi tuuti na trop Sénégal dafay dañuy caaxaan léegi pour investissement milliards lan la Sénégal di jox Turquie loolu laa leen di faram-fàcceel ci lu gàtt bu njëkk bi mooy nee nañu Turquie gouvernement Sénégal dina leen jox benn yoon boo xam ne ñoom rek ko moom li ñuy wax couloir vert ñoom. waruñoo tardé waruñoo taxaw suñu ñëwee dañoo war a mën a dédouaner rapidement dañ leen di defaral benn couloir boo xam ko moom beneen entreprise amu ci droit beneen sénégalais amu ci droit ñaareel bi ñu ne dinañ leen may dinañu toog fukki at ci Sénégal fukki at yoo xam ne duñu fay fukki dërëm ci dé ci ci élew fukki at turki dañ ko fi toog di exploiter suñu fer di génne di jaay di am ay milliards te duñu fay fukki dërëm ci réew ci Sénégal te ma fàttali ne amul benn benn texte de loi ci Sénégal bu may ñu mën a exonérer euh, benn entreprise fukki at euh, yemul ci loolu lu ci impôt impôt impôt sur les sociétés ak taxe sur l' activité professionnelle yëpp lañu leen exonérer. ñu tega ci ne nguur gi nee na walla moom ci taxes yi nga xam ni entreprise da ko war a supporter ci lépp lu muy jënd ci courant wala ci gaz walla ci ndox nguur gi may na ko entreprise du ko fay Sénégal mu neeti nguuru Sénégal jël na engagement ni li ak li entreprise waroon fay ci sécurité sociale pour employé état du Sénégal moo koy fay entreprise du fay mu ne état du Sénégal it jël na engagement ni entreprise bi may nañ ko 50 pour cent mooy xaaju ñi war a liggéey foofu mën na ko dem jëli jur gi andi ko loolu mooy lépp lu fay cadre ak nangam-nangam benn seen Sénégal yaakaar nañ ko fi suñu soxlee nag ay gaskat wala yu mel noonu xam naa dañ jël ay Sénégal ñu ne ci may nañ ko moom. turc bi entreprise bi ni état du Sénégal day da koy jox li ngay dañuy wax prime de frais d' exportation mooy suy exporté état bi dugal dina ci amul benn entreprise sénégalaise bu ñu ko amul amul benn entreprise sénégalaise bu ñu may sax lu xaaju ni amul ci Sénégal ñu ne fii dinañ ko may moom lépp lu mu war a fay ci port bi mu am ko à un prix préférentiel mooy li nit ñi di fay moom du ko fay dañ ko koy wàññil defalaat ko ko ba du fay lu cher ñu nekk ba léegi ci accord bi moom dinañ ko jox exclusivité benn licence boo xam ne lépp luy récupérer ferraille bi ci Sénégal moom moo ko moom léegi te wax suñu ferrailleurs yi vos jours sont comptés boobu ngeen xam ni léegi dootu leen for suñu entreprise yi nga xam ne ñu ngi commencé dund ci domaine sidérurgie am nañ ci ñett ba ñeent yoo xam ne ñu ngi góorgóorlu di commencé di defar fii di truc yéen ñëpp seen i bagages bu yowoo ngeen xam ni vous allez mettre la clé sous le poêle ñuy wax. Euh, ñu ne tamit nañ koo defal moom benn administration spéciale benn comité de pilotage ba nga xam ne lu mu soxla ci administration rek danaan nii rek ñu ne ko gongo lu taxaw durant amul problème ñu ne fi li mu war def pour jële courant bi ak ndox bi ak leneen ak leneen yóbbu ko ci ay usine am état bi moo koy fay état du Sénégal moo koy fay ak suñu lépp wax naa léegi ni lépp luy euh, luñ koy woowee raay lépp luy raay lépp luy xam fii ci biir fi ñu leen jox cent hectares yi wala foofu dem ba Tambacounda et ñun ñoo koy tabax ñun Sénégal su may wax état du Sénégal dama bëgg nit ñi xam ni su ma nee état du Sénégal mooy ñun état du man li li ma leen mën a mooy yow mi journaliste li ngay contribuer ci info Macky Sall ko contribuer parce que moom de caisse noire ak yooyu lañ ko jox dañ koy jënd rek andi yow au moins sa salaire ngay fay boo demee jënd ah, diwlin fay nga TVA boo demee fay facture courant fay nga TVA Macky Sall fay loolu Amérique bu gars yi toog naan état mooy Macky Sall ak gouvernement état mooy ñun suñu nee état du Sénégal mooy fay li ma bëgg ngeen xam mooy suñu lépp moo koy fay mooy Je ñoo koy fay ñu delloo si ci ne société sociale première phase 60 milliards la rek wax ay bancaires ñu ma euh, Turquie actuellement nañu banque Sénégal ne leen dañoo bëgg ñu lebal leen 50 milliards waaye dañ leen lebal sax 500 milliards xam nga ndax lan parce que benn état du Sénégal nee na man Ousmane sow ak yow Guy mari Sagna ak ah, baykat bi nekk fële di xaar taw bi boobu ba ak chauffeur taxi bi ñun ñooy garantir prêt bi mooy su entreprise bi lebee ñun ñoo koy garantir ak suñu lépp. njëkk bu njëkk bi mooy ñun ñooy fay intérêt yi intérêt yi xam nga soo demee banque day teg intérêt intérêt yooyu ñun ñoo koy fay banque bi du ko fay banque bi dootul fay ñun ñoo garantir su ma nee ñun dama ne la mooy man Ousmane Sonko yow Yacine Fall ah Bour Guédé mii toog ak euh, euh, nappkat bi ne fële ñun ñooy fay su euh, képp bi demal ba ne mënatuñu fay ñoo ngi ñëpp ñun ñooy fay waa loolu koo ko defal koo ko defal banque bu mu dem mu jox ko li mu bëgg li musiba c'est très grave ba tax euh, nee nañu tam foofu lay daanale état du Sénégal moom dina fexe ba tur bi du ñu am concurrent fii Sénégal mooy ñoom ñooy wër di xool kat mooy def ay ndax respecté na norme yi bu respecté na norme yi ñu tëj ko ak yeneen ak yeneen yu mel noonu gis nga lii du guleet parce que tey soo wax naa leen léegi yéen ay journalistes yi ngeen su ngeen génnee léegi wala fi ngeen toog seen seen téléphone dugal leen rek social yi Algérie di ngeen gis ay articles yu bëri yu ci wax ñii lañu def ba jox ko monopole absolu bu ñu casser toute la concurrence lu ko neex lay def Algérie fi mu nii prix du fer nii la def Algérie mooy fixé lu ko neex te li mu am fii am ko Algérie parce que Algérie produire am ko minerai de fer day eh, kii ba rek ñoo defar ko lii nag bu ko Sénégalais parce que man toujours Sénégalais yi laay waxal nee naa leen man Macky Sall Benno Bokk Yaakaar député am gouvernement am ñoom tax ni ñu mel mel nañ ko munoo fexe ba ñu soppi parce que suñu amoon tuuti jom nag ak fi ne nii ni leen coow toppee ci dossier wu pétrole beeg gaz bi defe naa ni balaa ñu koy def nañu xoolaat mais su dee jàpp nañu ni si askanu Sénégal loolu nekk def loolu nekk teg seen doot ku nekk naa incha allah macha allah salaam dégg nga li ma dégg dinañ yàgg def moo tax man askanu Sénégal lay wax bu ñu nangoo lii ça veut dire que. lii tey doon suñu natt ak suñuy coono mérité nañu kenn fajuwul ci Sénégal man barka semaine passée sama benn tante bu ñëw seet si ma daa di brisé ci blouse bi dam lundi la dam mardi la dam ba lundi bi mënuñoo am ñu ko opéré mardi ba lundi une semaine waxuma la rek ñi accidenté fréquemment wala fii nangam nangam kenn faj gars yi ne nañ tabaski amul waxtaan ay suxaat ñëwoon kan moo koy li may wax ni am benn Sénégalais bu fa mu nawee dëkk bi métti na na ñu nangu ñiy toog suñu kaw rek toog suñu digg bopp dañu def lu nekk askan wu nangu loolu nag bu fi kenn tudd yàlla de ku fi tudd yàlla tooñ yàlla jox nañu ko nangoo dañu jàpp ni lu ñu daal mérité rawatina rek ndaw ñi ndaw ñi man fu ma génn attroupement la man léegi damay làqatu dugg ci ay photo filmé euh, et cetera fu ma génn booy daw si Sonko vraiment ni ñi espoir nañu photo nañu man soxla ma loolu xam nga lu ñu soxla ñun lii lañu mën lii lañ leen mën bu desee bu di weesoo nag kenn ku nekk Sénégalais yi na xam ni responsabilité personnelle am sa engagé suñu leen woowee gën leen c'est extrêmement important am ngeen ndax la parce que lii weesoogul ñu wañ loxo Macky Sall mu dellu gannaaw weesoogul de parce que ci fànn wi dañuy njëkk a signé dañuy wax protocole d'accord moom la ñuy wax MOU buñ ko signé ba noppi moom la ñu signé bu dañuy signé deuxième document bu ñuy wax convention entre l'État du Sénégal ak Toscane

lii mën nañ koo xeex ba Macky Sall dellu mais loolu day supposé benn mooy sénégalais bu ne dafa def affaire bu ñu nee génn leen su un million de sénégalais génnee Macky Sall du signé décret bi waaye bu ñu nee génn leen Guy Marius Sagna génn ñu yettu ko taxañ yóbbu presse bi titre Guy Marius Sagna encore arrêté mu mel ni mbir mi mbirum Guy Marius Sagna la askan boobu kañ lay dem est tey soudanais yi nekk ci benn bi est-ce que tey français yi nga xam ne ñoo ñu ëpp niveau de vie foofu te ñuy xeex depuis des mois est-ce que tey euh, nu mu tudd hongkongais yi nekk ci mbedd bi algériens yi nga xam ne macha allah au moins am na lu ñu ëppalee foofu ci alal est-ce que ñooñu dañoo war a gën a bëgg seen bopp ay néew moo xam ne kenn ku nekk tànk la wayu tànkam yoonam néew ci la te xamul ni mënul kenn mënu fee mus ba baaxle fekk lépp yàqu na ci kaw munu nekk kon ndaw ñooñu peuple sénégalais taximan beeg photographe beeg journaliste beeg mareyeur beeg ñépp laa wax su ngeen sàgganee ba lii Macky Sall signé ko mu dem bu fi kenn jooy doot nañu toog jàpp yàlla jàpp suñu jàmbur kenn ku nekk na dem seet noo tojee sa bopp jaral weesagul su ñu nee xeex jot na dañuy xeex na nit ñi génn xeex ngir l'intérêt général activistes yi mouvement citoyen yi aar li ñu bokk lii mooy dossier plateforme aar li ñu lii parce que li ñu mën a aar la weesoogul li weesu wees nañ ne dañ koy aar lu ñuy def ba fokkatiwaat ko mu dellu si waaye lii mën nañ ko aar fi mu ku nekk naan l'État est puissant si je fais ceci ils vont m'envoyer les impôts dañuy dal sama kaw dañuy lii vous êtes condamné tey si déluge bi la demain euh, beneen secteur lay doon de toute façon pratiquement c'est un secteur privé qui est qui est indissable presque ba ci noo suñu mbokk ferrailleurs yi ñëpp laa ci boole dama ne dossier bi dossier Sénégal yëpp la du dossier Ousmane Sow man. sama ndaw dëndal di ak asa dama ci perte suba nga dégg leen ñu mel ni ay xamaat yi alors ma wax ak Macky Sall Macky Sall wata wat dafa am loo xam ne mënu jig jig organiser loo bëgg yónnee say waxkat ñu ne ci télé bi rajo bi di wax mais mënu laa jig li mu def ci setan li nga def yow ma Sall ci sept ans yi wees te xam ni lu rëy la moo tax sa bakkat nga doon joxe pour am ñaareelu mandat parce que jàppoon na ni jàppoon nga ni boo jàkkee ñaari mandat bi boo matul dina saf ci yow ak say jege ñaare loola tax bi ñu génnee ci élection bi su gaawantu ne dialogue national pour ñu dimbale ko pour mu effacer ses ne ko boo ñu ko gisee de foofu laa ci yem nag ndax <laughs> dootuma tudd loolu ba ñu ngi koy wax wat wat Sénégal moomuloo ko donnuloo ko mayu ju ko jaayu ju la ko mandat dong lañ la jox te mandat ñetti ñetti at ci des mu lii de bu ko signé yow Macky Sall lii boo ko signé xamal ni man day waatal ci yàlla ne dina la topp dina la yóbbu foo xam ne en tout cas yéenewu ma la ko de parce que du ma ko yéene benn benn jullit du ma ko yéene benn doomu aadama mais je tiens à le dire mu xam ko c'est un crime contre le peuple sénégal un crime innommable inquantifiable contre le peuple sénégalais la ca des nak mën nga musa ki waré ba japp ni mën nga def fi ay mascarade wo sa procureur mu tëb beur beur beur na day def xaw appel à témoin yëpp ñak fay yi man mo tax témoin parce que lépp conclusion bi moy amul li ñuy topé xale sax wayé lolu dossier bu du décanté au Sénégal c'est pas avec cette justice là li ma leen mën a ci gàttal rek mooy am na ay développement yu ama am solo yoo xam ne te ñañ ko sekkal mënuñ ci wax ak moom peut-être balaa septembre bi di nekk ñeen ci am lu bëree bëri waaye am na ku ko wax ne ñoom duñu doxal ci jéem dëkk xam na tax mu wax te parce que justice moom moo fi amatul la waaye gàcce bu rëy la nar a parce que am lu toll nii sa dëkk ñëpp wax ci nga ne du ci at du ma ci yëngatu ba mu ba mu réglé woo ci justice beneen réew kooku gàcce la ci justice sénégalaise loolu daal la ñu amoon pour wax ak yéen ñu ngi leen di gërëm di leen di